yaakaar naa yaa ngi wax ci lii euh, ministre daaw Daouda Diallo indi woon keroog muy ay régularisation yoo xamante ne yàgg na fi waaye bii dafa am particularité ndax euh, xam nga président day day taalibe boo xamante ne dafa dogu euh, dafa maandu te tamit day wéy ci lu dul ndigalu sëñ Touba donc jàpp naa ne loolu ñun mbégte la ñun ñëpp ñi nga xamante murit lañu ci lañu sax te lépp sunu lépp fi lañ ko yaakaare kon tamit euh, titre foncier yooyu nga xamante ne jël na ko jébbal ko euh, Cheikh euh, Mountakha Al Bachir ba mu ko sàkkoo ci moom kooku yaakaar naa ne acte président la République mais surtout acte talibé la. murit ku ko xam normalement ci discipline nga ko xam ak ci doxee ndigal donc da ngay jàpp ne bis bu Cheikh Ahmadou Bamba wala Serigne Touba Cheikh Mountakha Bachir waxee dafa mel ne lenn li ci des rek mooy murit yëpp jëfee ko. kon euh, jàppoon nañ ne xaaruñu woon leneen lu lii comme moom sàkku woon na ci ñun ñu indi discipline sàkku woon na ci ñun ñu respecter mesure barrière sàkku woon na ci ñun ñu topp règles yi nga xamante ne moom la autorité sanitaire yi édicté kon jàpp naa ne loolu yoon la tey ñu gisee ko nii ndax murit égal discipline lépp la ma sëriñ Tuubaa defal lépp man bul fàtte ne Modou laa tudd te sama baay Moustapha la tudd ñun suñu lépp sëñ Tuubaa la Eh, yalla def na yaakaar naa bant yu yi ma am euh bo len xolé seeni tur mbàkkee ngi ci ñu ñi nga xamantene nak eh, suñu mam bañu ñu yoon wala and ak señ bi suñu maam Amadou kasse mo jigen nekkon aussi porte parole ak secrétaire particulier señ mourou Modou Moustapha eh, am na loo xamante ko doon wax tay fi du jeex mën nañ japp ne tamit. Euh, juróom-ñeent fuk ak juróom-ñeent ti tali yi nga xamante ne ni mom le sëñ bu mag bi bàyyi won Daaru ak borom dërëm ak ngërëm am nañ cay mam kon yàgg nañ ci yoon wi euh, te ñun nak bu ñu nekkee ci yoon bi dañuy bàyyee sëñ bi suñu te nangu ne lu ñu defal rek loxoom a ngi ci. keroog ba nga sama tau mi ngi aduna si dem seti sëñ sama baay ba sama yaakaar ba sama lépp àddina mi nga xamante ne fu ma jaar dama ko daan laaj d'abord xelam ma ñëw ak samay jaaxle ñëw ak samay mbégte tamit ñëw ak samay plent ak samay complainte fas yéene jàmbat waaye ba mën ne yar ca biir néeg ba dafa ne ma dama namul ci yow benn jàmbat te keroog liy firnde bis bi mooy keroog la ma boole ak euh, le général Mame Thierno Dieng mi nga xamante ne boo déggee ñuy woowante ñun ñaar ay mbokkum deret looloo tax parce que keroog dafa jàpp sama loxo jàpp ci loxo Mame Thierno Dieng li ma lay wax nii est-ce que du 2006 wala 2000 2006 waaw mu jàpp sama loxo jàpp ci loxo Mame Thierno Dieng daan ne yéen sama mbokki mbaakol yi da ngeen war a xam ne ay mbokkum deret ngeen.